mbokk jullit yi ci biir Sénégal ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di ñaan yàlla mu nangu ñu sunu koor nangu ñu sunu jaamu yàlla. mu mel ni ki seen site euh, internet bi ñuy tuddee Diassigui TV tey dafa ñëwaat euh, ci beneen anam ci beneen doxalin fa seene euh, dalal ñaari ñaari jàmbaar ñaar ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu diina. ak jamono surtout ki nekk ci sama ndeyjoor sëriñ Modou Ladiane nekk fajkatu euh, cosaan bu mag fii ci Sébikotane ak li ko wër euh, ku ci mel ni it sëriñ Babacar nga ni sama doomu baay la mi ngi ci sama wet moom tamit incha allahu rabbi ñu ngi lay nuyu sëñ Babacar di la ziar di la jox sa wàccuwaay. maa ngi di la nuyu bu baax a baax di rafetlu émission bi. Mm-hmm. Euh, di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan ci Diassigui TV. waaw di rafetlu émission bi bu baax di nuyu sama naataango bi Cheikh Modou Ladiane ñu ngi koy ziar bu baax a baax. alhamdulilah sa naataango boobu di Serigne Modou Ladiane ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàcc wàccuwaay di la bàyyi nga nuyu ak askan wi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent yàlla Muhammad ñu ngi sant mboolem wàllu yàlla yi waaye ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel. oustaz la sant bu baax a baax di la nuyu du nuyu mboolem ñi nga xam ne rek ñoo safoo télévision bii nga xam ne mooy Diassigui TV di nuyu mbolam ñi nga xamne nit it ñoo ñu bàyyi xel ci aduna bi yëpp mo xam ci bitim rew la mo xam ci bir rew mi insha allah oustad émission bu am solo bi nga xamne ne nga taxawal nga xamne mi ngi jëm ci li nga xamne lépp lo xamne actualité la rek insha allah ñu fassiyé yéene cee waxtaan insha allah ñu ngi nuyu ñëpp di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah ma sha allah xamna tay bu ngeen ko gisé dina génn fanen tay mënul fajj kasse yam ci mënul dimbali jaamu yàlla yi rek yam ci ndax dëgg yàlla day dimbali nit ñi ci lu bare bari bari bari ci wàllu biir ak biti mais tey dañuy ñëw ci beneen anamin euh, sëñ Maodo jamono ji ku ne xam na ni réew mi dafa rëb te bokk na ci li ko rëbal mooy nit ku nekk yaa ngi xëcc jëmale ci sa boor état bi ci jëmmi boppam mi ngi xëcc jëmale ci boppam opposition bi di xëcc jëmale ci boppam mu mel ne dañoo fàtte yàlla léegi ñoom ñaar ñooñee lan nga leen di delloo as ci yàlla. ñu doog a ñëw ci ci ci sunu question. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax oustaz di am kontaan ak mbégte lool ci laaj bu am solo bi nga xam ne laaj nga ñu ko parce que damay wax ne maanaam jamono ju nekk rek nit ki ci ak góorgóorloom waaye ci gëstoom ci lay demee ba xam ne mbir yi lépp yàlla moo koy doxal bu fekkoon ne ku nekk ci ñun rek doyloo na borom bi subhanahu wa taala ku nekk ci ñun xam na ne lépp loo am wala lépp loo war a am ci ala kulli al nit mënut dox sa diggante ak kon di nga doylu waaye di nga dox doxin boo xam ne doxin bu rafet lay doon te it àdduna dafa nekk mbir moo xam ne oustaz lépp lu fi nit di def rek na ko rafetal lépp lu fi nit di def it na ci bàyyi xel bu baax a baax ndax lépp rek jamono la boo xam ne yàlla am na lu mu la mën a dénk incha allahu jamono ngi ñëw yàlla daf koy nangu kon nag jamono bi la ko yàlla di dénk ci nga war a góorgóorlu ci nga war a rafetal ci nga war a teg jaam yàlla yi parce que nguur ak lu mu mën a doon ak ku mu mën a doon lépp loo téye rek dafay jeex te yàlla mi la ko jox joxulu ko pour ngay foyee doomu aadama yi wala pour nga leen di not wala pour nga leen di gundu xataal wala pour nga leen di indil fitna kon wax dëgg yàlla li tax ñu teew fi tey wala li tax tey ñu taxaw fii ngir mën cee def ay jàngat dañ ci gën a duggaat bu baax a baax waxtaan ci mbir mi ñu fi indi incha allah oustaz di la wax na daal nañ bàyyi xel ci ne lépp luñ mën a yor bisi ngi ñëw danañ ko ñàkk waaye nag ma ñàkkin ba rafet loolu mooy li am solo incha allah oustaz allah innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum xam nga jullit ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay frère lañ kon lu nit di def si digganteeg moroom mi war naa mën a rafet sëñ Babacar laaj bi may njëkkee ak yow mooy gis nga ni yàlla dina jox nit ki léeg-léeg am ay moroom nitam yu ko iñaane nit ki léeg-léeg dina jëf ay jëfam ba yegg ci benn place bi am ñu soxoree ko ko ku mel ni semaine bi nii ñu nekk nii ku ñu tuddee capitaine Touré hafizahullah yàlla na ko yàlla sàmm dafa am ci ay jafe-jafe yu mu jógee ñu dind ko ci bërëb liggéeyam dàq ko mu xëyaat xam-xam bi ne ci boppam mu dem fas yéene ko tuur ci ay bopp élève ñu ñëw ne ko fii doo fi jaar léegi yow ban njàngat nga am foofu waaw Oustaz ginnaaw bi ñu la nuyuwaatee di rafetlu question bi parce que réew mi ñun ñoo ko bokk Euh, da nga wax legui ne julit julit moy mbokam yalla mo wax lolu donc buñu défé defee suñu jàngat ci capitaine Touré personnellement bo togué nek sénégalais euh, buñ la tégalé trace bi mu jaar ak honneur bi mu bi mu wane da ngay mujj yow am ben sans souffrance boy dund ci sa réew ci jamono juñ ñu toll nii ci sénégal toll parce que gëm sa bop nit indil la dossier nga tié dossier bi xool ne ay tiaxaan yu ci nek nga tracé ko ne duma ci wax ñu ne da nga euh violer li nga xamné moy loi bi nga xamné mo nga def constitution bi ci gàttal voilà te ku xam gendarmerie xam ni muy doxé te li def Je jangar la bo sénégalais war nañ ci mëna am leçon buñ ci ci sama gis-gis capitaine Touré moment bi comme li koy ketal ni ci Sénégal ku ci nekk di am loy jël as ci sa poste diko ko jox. ne war nañ ci manko mënuñ ko jox lu reuy parce que limu mu limu sacrifier sacrifié dafa réew amuñu amuñu fay pourtant euh, gendarmerie nationale. amul woon amoon na tur mais mais ampleur bi mu am jamono ji amu ko woon. léegi lan moo ko may lii mu am ni tey jii. parce que dafa dafa dafa dafa gëm réewam nekk patriote. kon comme li ma doon wax bu fekkee ne moom ci boppam dafa gëm réewam sol mbubb bi nga xam ne moo doon mbubbu patriote ndax patriote mooy ko gëm sa réew. nga di ci dem di ci dem bañ indi la dossier boo xam ne attanoo ko parce que li ñu la chargé waat nga ne yow doo wax lu dul dëgg. nga taxaw bañ loolu. comme euh, oustaz. Euh, nga toll noonu ci sa réew nga summi sa mbubb jaayanteeg askan wi. yaakaar naa lu ñu la fayle lu ñu la mën a fayee amul dama ko seetaan démb ci benn site internet du ma tudd tur bi mu nekk ci benn village ma xool ko gis ne carrément kii ku ko xool ma bi ñu toll nii di nga ko jàppale te gis nga bañ ko delloo ne ko école bii ngay jàngale da ngay arrêté xam lu mu wax damay delluwaat sama dëkk voilà dam fa séenee dafi élevage dam bay balay patriote ji déggee information bi ñu daal ko defal ko benn collecte. merci beaucoup. kon loolu day wane ne képp koo xam ne yaa ngi réew mi moment bii nii yor ci benn ci fonction yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu xam fii ci réew mi ñu jox la nga mbubb mu nga sol ko war nga mën a sàmmante ak sa ak ak sa yelleef ak ngor gi ñu la ba euh, sauver sa honneur. sauver sa honneur jërëjëf sëñ Babacar xam naa ne dinaa ñëwaat ci yow mais gis nga àdduna lépp ay jàngat la kenn xëyul sax fi kenn xëyul ñëw. ab yoon la rek borom subhanahu wa taala dañ wa qad xalaqakum atwaara maa leen bind étape par étape mais capitaine Touré ak i moroomam dafa am fuñ jaar jàng am BFEM am bag dem université ah ba léegi sax maa ngi ko dégg mu naan day fas yéene continuer pour def mémoire am pour def nangamam kon mu mel ni ki sëñ Modou jamono ji rëb na rëb boo xam ne nit ku àndul ak nit rek ñu ñu xañ la ndax ndax yow mi ñu sant pour ni la demal nga jël diw fonction nga dindi ko ndax yow yaa ngi am looy sóor pour ëllëg. waa xam nga mooy li ma wax léegi rek ci gannaaw ndax lépp lu nit def rek di ci bàyyi xel suba dafa am solo ndax capitaine Touré maanaam man damay wax ne taxawaay bu am solo la taxaw waaye taxawaay la boo xam ne dafay am njàngale ci suñu njaboot dafay wane ne nit ki war naa mën a gëm boppam wane ne nit ki war naa mën a gëm réewam wane nit ki ak lu mu métti métti rek donte sax dañu lay xeex wala dañu lay rey ak lu mën a xew rek nga teewal dëgg parce que loolu moo lay muccal tey li mu am nii li ko ko may mooy dëgg. tey bu fekkoon ne tey dafa xalaat ne tey am na lu nekk sama gannaaw tey kat lii su ko su ma ko suma ko deful danañ ma dàq wala lii su ma ko deful man na maa xañ sama place bi ma nekkoon kon bu boobaa dafay koy def te dana def loo xam ne yàlla gërëmu ko waaye nag ci dëggu gi mu dëggu waaye bëgg gi mu bëgg réewam waaye bëgg gi mu bëgg askanam loolu moo tax tey mu doxal dëgg moo tax tey lii ko dal dal ko waaye li ko dalit nag amul kenn koo xam ne seetaan na ko ci ndax tey oustaz boo xoolee xam ne képp koo xam ne rek patriote nga wala képp koo xam ne bëgg nga réew mi. man jot naa ay information sax ñu ni ma. même état bu Sénégal am na ñu ne ci gouvernement Macky bi. Mm. ànduñu ci dindi gi ñu ko dindi école. waaw mais ne yow dëgg moo la tax a jóg wala a jóg wax mu nekkoon. parce que yow da nga ko fa teg ne ko dëgg lañ la fa tegee jox ko dossier saytu dossier ba xool ko xam ne dossier bi am na ay njuuj mu am fulla ji toll ni wala boog am fi du toll ni ah lii ñu ma jox ma di ko traité kat gis naa ci loo xam ne bokkul ak la ma taxawoon waat ci sama loxo ne lu dul dëgg du ma ko doxal parce que dafa waatoon léegi loola mu def ko yow nga ne loolu war a koo def nga dàq ko jëlee ko foofu foofa moom bàyyiwut mu topp di góor góorgóorlu ba yàlla suturaal ko mu am feneen foo xam ne jël nañ ko fa mooy fay jàngale ngir dimbale askan wi ak di joxe xam-xam nga ne du am te la ma ci gën a bi ne ci boppam mu fas yéene ko sotti ci ay bopp xale ñu ne ko loolu du fi amee wax dëgg yàlla oustaz ñun fi ñu toll nii ban réew lañ nekk ban réew man dama am déception euh, ma dog la tuuti déception bi ma am mooy. suñu état bi fi nekk nii tey man dama bokkoon ci ñu leen fal. Mhm. suñu état bi fi nekk nii tey déet da nga naan dañoo bokkoon ci ñu leen fal man dama toll benn jamono boo xam ne oustaz du ma la ko nëbbu sama waa kër dama leen wax ne képp koo xam ne demul wateel ki fi nekk nii tey maanaam sama kër moom xamal ne ma ko ci ni ma ñi ma yilifoon ñëpp dama leen jiital 2012 ba moom laa hmm. bi moom laa mujjee hmm. sànni hmm. mais boo gisee lu tax ma xëy xëy am am xaw am tit bàyyiwuma ko 100 pour cent parce que nit ko boo ko bawee rek mu wéet man xawma ndax moom la xaw ma ñu ko wër la man daal ma sama xel daal tey na ci ci magi ak ñam àndal sëñ jëf ji nga jàng nii yëpp ni yow loolu soo ko doon conseiller ñu ne ci gouvernement bi ba ci ku mel ni suñ président bi loo koy dénk waaw oustaz xam nga mooy li may wax léegi rek maanaam moom su bàyyee xel man tey su ma doon su ma ko doon euh, jox sama xalaat li may koy wax mooy mu bàyyi xel ci jamono yi nga xam ne soxla na réew mi mu bàyyi xel ci jamono yi nga xam ne tolloon na ci moment bii nga xam ne moom la Sonko toll wala moment bii nga xam ne moom la ki nga xam ne moom moo di capitaine Touré toll te wax dëgg yàlla askan wi yëpp dañoo àndoon ak moom soutenir ko jàppale ko ba tey mu taxaw ci bopp réew te it incha allahu bu ëllëgee la fi bàyyi ko keneen kon na bàyyi xel ci xam ne ñoom lay teg ci yi mu xam fu mën a doon nag. moom ak ñi mu àndal. ñi mu mën a doxal moom mooy ndey mbi ga nañ xam ne lu dul nguuru borom subhanahu wa taala day dafay jeex dafay jeex kon na bàyyi xel ci ñi mu jiite te xam ne li mu am ñoo ko ko jox xam ne li mu yor ñoom ñoo ko teg ci loxoom ba te lii muy doxal nii ci euh, capitaine Touré nii man damay wax ne bëri na loo xam ne mën na ko yàqal parce que tey président bi wax dëgg yàlla ku waxal yàlla doone lu def parce que am na lu mu fi def waaye nag li maanaam ci wàllu dund bi ci wàllu nekkin wi ci wàllu xojañale ci ma teg la fitna wax dëgg yàlla loolu moom duñ ko rafet lu mukk te ñu ngi koy wax ne na ci bàyyi xel lool na ci bàyyi xel bu baax a baax. na maa ngi ñëwaat tegal foofu sa baaraam ànd ak nit bu mu la tax nga waxal nit ki loo xam ne nekku ci moom bañ nit ki bu mu la tax nga waxal nit ki lu nekk ci moom président Macky Sall ñun suñuy carte yow lañ ko joxoon ba nii may wax ak yow man nit ñi dañ naan ma am nañ yeey ci yow rikk waay xoolal sa entourage muy ministre euh, conseiller muy ministre de la république muy les directeurs généraux képp koo xam ne mu ngi ci yoon woo xam ni da lay sànq da lay dugal ci guuta nga jéem koy effacer indi keneen fii dara yàggu fi lépp loo gisu nekk rek day jeex moo tax damay jàll ci sëriñ Babacar sëñ Babacar léegi moom capitaine Touré moom en personne moom yow tey jii soo ko doon dénk loo koy dénk. bon man capitaine Touré dama gis ne jaratul ma koy dénk dara parce que li mu war a def def na ko. mais ah kay doono doomu aadama la doomu aadama faw ñu wax ko dénk ko. waaw parce que dama ko encouragé ba pare. ci li nga xam ne moom la def muy aspect bu bu bu. Nabi sallallahu alayhi wasallam da daan wax ay saxaabaam naan leen. kaay leen ma dénk leen su ngeen naafile di ngeen am nangam su ngeen defee nangam di ngeen am nangam ah. kon kon fala budda mënta ñàkk waaw dëgg la kon capitaine Touré tey su ma ko doon conseillé li ma koy wax mooy li mu nekk bu mu ci arrière ndax lu ëpp lim noonu yaakaar mooy dëgg ji mu taxaw bu mu ci bousee centimètre parce que dina jot lu ëpp lim waroon a jot léegi est-ce que xam nga ne boo jàngatee capitaine Touré li ñu ko jox démb li ñu ko récolteel ci Sénégal su fekkoon ne moom fonction mu ngi dox peut-être mën na liggéey ba arrêté fonction ba ba retraité. waaw. est ko du ko am. beneen aspect amaan na. mooy que capitaine Touré dañ koy jël IAM. mu dem fa di jàngal ay ndaw. léegi xam-xam boobu doon jóge koo ci moom di dugg ci ndaw ñi. xañuñu ko ndaw ñi est-ce que. kon dañ leen ko kañ kon dañoo ray réew mi. te gis nga réew boo ko bëgg a tardeel ci xam-xam ngay njëkk a commencé di def ay fee yoo xamante ni ay bêtises la bu ko defee yooyu nañ ci bàyyi xel ku mel ni mag Sall sëñ bi da ko wax léegi boo koy conseillé lépp lu muy def da nga koy wax ne ko del moytu lii wala lii mais bu dee ci liggéey la lu waaye teg bët xam nga dëgg la wala dëgg. na ñu ko wër ñoo xam ne seen intérêt personnel rek léeg-léeg nga dégg ñu ni kenn nag ci moom am na R plus 2 am na R plus nangam am nay centaine de milliards. ci même pas depuis 2012 ak léegi nit ki mën nga liguey lo xamni pour nga amee milliard néew ma doo ko am mais. du yomb gis nga gis nga oustaz Sénégal dañu toll fo xamni fim nek ni euh li len di merlo moy ngay tuuse nit ku laal deug nga tuuse ko. dañu révolté wu parce que dañu révolté wu parce que deug nga nga taxaw di xex deug ñu ne la waroo ko wax. man d'accorduma lool même damay faral di wax ni muy Sonko muy kenen ak kenen ak kenen képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne méngoowul ak li réew mi soxla nañ génn wax ko dëgg waaye nag alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ni juróom-ñaar a ngi ni yoo xam ni ëllëg bi si penc dinaa leen keral ca keru aljana ya sabaatun yudilluhum allahu taala fi dillihi yowma la dilla illa dillu ba ca njëkk mooy dañi imaamun aadilun ab dirigeant bu mandu ndax dirigeant bu mandu ci bii dossier capitaine Touré am na gis nga sénégalais yi moment biñ toll nii xeexal xeexaluñ sonko ah xeexaluñ Sonko xeexaluñ capitaine Touré xeexaluñ aji euh, Ndeye Khady Ndiaye mais dëgg la ñuy xeexal. dëgg la ñuy xeexal dañoo bëgg xeex. pour indi dëgg. daal di neenal akuk caaxaan. merci parce que lu dul dëgg du yàgg. te ab jullit nag wax dëggum neex yàlla ab jullit warul topp moroomu jullitam ba mu sës. capitaine Touré li ma gis ni ni dañ ko top bam seuss mais nak yalla yalla paré na dembu tay soga a dafa seuss ni mom kon day dellu dëkkam bay ndaysan bam waxé lolu motax ci lim am ni yépp plus de 30 millions mu am ko même la dame aussi Ndeye Khady ndjay paré lañ ko pour dafal ko ben collecte 10 millions déjà 5 6 ci tekna na gis mu melni yalla lég lég day sotleb xeexkat kon jërëjëf sëñ Babacar sëñ Modou ma ñëwaat ak sama kàddu ci yow fi may daane léegi yow mooy en tant que nitu diine en tant que kuy dimbali jaamu yàlla yi yow tey ji Macky président Macky soo ko bëggee dimbali ci danger yi nga xam ni mu ngi ci kanamam nit ñi di ko teg mu yëg ko mu ñàkkoo koo yëg yow lan mooy sa taxawaay ci wax jooju. waaw mooy mu deltu gannaaw rek mu deltu gannaaw. gën a jege dellu gannaaw ci yi mu nekkee nii ci caaxaan yi nga xam ne ñu bëree bëri ñoo xam ne teg na leen ci réew mi ñuy ñuy lekk ci ay caaxaan xam nga dossier yi bii nga xam ne. waa mais mënoo jiite réew mi ba pare li xew ci réew mi mënoo ko yëg parce que même bu fekkee ne moom daf ne mbir am na te yëgu ko mais bu mbir mu amee dana ko yëg loolu moom mënut a fexe ba li xew yëgu ko yëg na ko moom moo ko gën a yëg li ci mooy mu fexe ba jege askan wi parce que jege askan wi moo koy dimbalee askan wi mu xam yan jafe-jafe askan wi di dund xam ci ban maanaam xam réew bi ñu nekk coono bi nga xam ne askan wi am nan ko moom mu jéem koo xam dimbale leen ci wàllu dundin bi parce que it nag tabaxam réew am na solo lool de waaye bu fekkee réew mi ngay tabax ñi nga xam ne ñoo ci war a dëkk ñi ngi dee loolu du am solo na fexe ba góorgóorlu ba nit ñi ci seen dundin ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu faju wax dëgg yàlla mu taxawee leen taxaw bu am solo. waaw wax dëgg xaj na xaj na ci askan wi parce que bëri na. wallaay. wallaay ndeysaan. fekkoo ko fi woon. wax dëgg yàlla dafa doy waar. kon kon kon daal oustaz ñun li ñu koy dénk mooy mu dellu gannaaw li koy dénk mooy mu gën a jege askanam. waaye li ñu koy dénk mooy mën a gën a góorgóorlu te caaxaan yi nga xam ne mi ngi daw ci wàllu li nga xam ne mooy wàllu yoon mu taxaw ci parce que moom lañ dénk réew mi képp koo xam ne bépp mbir bu ñu fi mën a def responsable bi moom la parce que moo jiite réew mi mënuñu wax ne man lii dégguma ko wala yëguma ko loolu moom ay caaxaan la parce que fu nekk rek ka fa nekk moo ko fa teg kon kooko la muy doxal moom waru ko mën a ump kon bu ko defee ñu ngi koy ñaan daal mu delluwaat gannaaw na nga xam ne moom la doon raajee réew mi ba nga xam ne ñun ñëpp jël suñu carte sànnil ko ko na delluwaat ci nit ñi te xam ne ñoo ko jox li mu yor tey bu yoree doole tey bu yoree koom-koom tey bu yoree sañ-sañ sañ-sañ boo xam ne fu ko neex mu dem wala fu ko neex mu mu doxal lu ko neex loolu ci ñun la ci ñun la ko jëlee kon nag nañu bàyyi xel bu baax a baax lii daal lañ bëggoon a participer ci waxtaan wi oustaz di wax ne capitaine Touré ñu ngi ci gannaawam di wax ne askan wi lii ñu def ñu ngi koy rafetlu lool ci jàppale bi ko jàppale waaye oustaz li ñu lay ñaan lii nga xam ne taxawal nga ko bëgg nañ bu mu yem fii incha allah dañu bëgg lépp loo xam ne actualité la buy am rek oustaz nga taxawal lu mel ni ñu waxtaana ko loolu dana am solo lool incha allah. ci kattan yàlla yàlla yàlla may kattan bi fi ma lay daanalee ak yow mooy lan ngay wax sa client yi yi lay seetaan te bëgg laa gis te bëgg a fekk si fan nga nekk. waaw di sant mboolem wàllu yàlla yi damay wax ne oustaz képp koo xam ne nar naa jëflanteeg ñun wala bu jëflanteeg ñun du ca gis boppam yàlla mi nga xam ne moom moo ne yaddullahu fawqa aydihim ñu ngi koy ñaan ci loxoom bu tedd booba waaye ñu ngi koy ñaan ci loxoom bu sell booba yal na ub ay bëtam ba kooku duñu gis waaye képp koo xam ne bu ñu gisee rek bu ñëwee yàlla defal ko saafara yàlla defal ko tawféex yàlla defal ko ak yëkkatiku yal na yàlla ubbi ay bëtam ba gis ñu loolu daal ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu télévision bi bu baax a baax nga xam ne muy télévision bi nga xam ne mooy jaas ji nga xam ne mooy jaas yi dëgg mooy jaas ji nga xam ne mooy jaas yi Seydina Alioune Dia waaye mooy jaas ji nga xam ne mooy daggate lépp loo xam ne moo dox ci diggante dëgg ak fen maanaam dagg fen teg na le indi dëgg teg ko ci digg bi incha allah ñu ngi siyaar ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Babacar lan mooy sa kàddu gu mujj waaw oustaz di remercier ñi ñuy seetaan waaw li nga xam ne moom laa ci dolli rek mooy que na Sénégalais itam am beneen euh, respect bu ñu amaat encore ci justice bi kon ne xam ne injustice am na mais nañ am tuuti benn reflet bu ñuy dawal ci seen digganteeg ñooñu parce que tey démb damaa seetaan ku mel nii bi ñuy bi ñuy euh, yóbbu aji Sarr palais de justice ni nit ñi doon def ak ni ñu doon xeexee ci bunt bi te loolu rafetul pour image du Sénégal kon donc loolu yooyu nañ ko moytu. waaw waaw ndeysaan xam nga xër dafa baax ci doomu aadama rawatina xër ci lu baax. mo xam yow mi di ma setan yow mi di ma deglu ma ngi lay denk len gis nga aduna bi dara yagul lepp ci net lay mujj yow ñi nga andal monsieur le président démb da nga am ko wut mu jug chaise jox la nga tok koku dafa am ku mu wuutu ana ka mu wut won ma nga France muy Abdou Diouf yow ana ki nga wut won muy Abdoulaye wad ma nga France 90 ans yi teg lu muy def daanaka dañ ko koy defal ñom ñaar ñep di len jappo ñom am ana ka ñu wut won muy Léopold Sédar Senghor ana mu tey mu ngi ci biir suuf kon leeral la nit ñi ni leen euh, lépp loo xam ne ay caaxaan la bokkul ci sama nguur góor góorgóorlu ba teg ko ci suuf lay dëgg dinaa ko doxal continuer ko bu ëllëgee mu organiser ay élection yu transparente bàyyi ko fi daal di mën a dem sama yoon ci jàmm ak salaam ñun dey wax dëgg yàlla dañu lay dénk yenn wii la yàlla yenn yenn gën a oyof ci yow. Mm. waaye nag lépp lu dul dëgg te mu nekk ci yenn wi fexe koo dindi seen mbokkum daara Cheikh Omar Ndiaye ñu gën koo xàmme ci xaafisul Quran moo doon dalal Serigne Modou Ladiane ak Babacar mi nga xam ni wax dëgg yàlla ku baax la day jàpp ci liggéey bi ki yoroon caméra bi di Serigne Amadou Thioune ak Mouhamed Dione nekk ci réalisateur bi. kon yal na yàlla sàmm leen aar leen dafa leen tawféex ba banee neen ak jàmm incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah